asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu mbokki internet yi te jii ñëw beneen yoon di leen di indil beneen secret bu am solo lool si wàllu kalpe kalpe yi nga xamante ni nii day faral di vide ñàkk xaalis daal eh, te nag ñu indi leen si secret bu am solo lool lool lool lool lool bi nag xam naa dañuy jëm a gaaw rek dem si directement. ndax wax dëgg dañoo gis jamono neexutut te kenn dimbalatut kenn kon bu ñu yàlla dogalee ñu xam ay secret suñu devoir mooy ñu seddoo ko ak jaamu yàlla yi ñëpp lañ fas yéene rek moo ñu am képp ku nekk rek li ngay yëngatu yàlla barkeel ko ah, kon bisimilah secret bi niñ koy jëfandikoo nag mooy li ngeen gis nii lii kayit la waaye lii exemple la rek. ni ngeen ko gisee nii da ngeen di jël kayit bii nii ngeen jël bee téeméer ngeen bind ko si kanamam face bii ngeen di gis moom ngeen bind si kayitu téeméer si kanam ngeen jël beneen face bii bind ko si ginnaawam si kayitu téeméer su loolu yëpp pare da ngeen di jël kayitu téeméer boobu noonu ngeen def ko si suufu sajaada bi ngeen di jullee mais sajaada boobu nag fexe leen ba kenn bu ko laal ndaxte si euh, bee téeméer boobu si suufu sajaada bi lay nekk comme nii. léegi bu ko defee ne incha allahu rabbi ngeen di zikkar baat yi ma leen wax bët bu set ngeen koy def nag mooy da ngeen di zikkar astaghfirullah téeméer salaatul fatiha téeméer laa ilaha illallah 700 ngeen zikkar xam nga su boobaa saa boo defee laa ilaha illallah 7000 7000 lay doon waaye 7000 yi nag 1000 euh, boo def rek da ngaa war a jàng suratu ixlaas 92 ngeen jàng ahamun saqaqun alaqun yasun 92 ngeen jàngu jaxrukul kamal onze fois mais loolu da ngeen koy def nag diiru juróom-ñaari fan bi ngeen pare incha allahu rabbi ngeen doog a euh, jël euh, billet téeméer boobu noonu ngeen dugal ko si calpe bi incha allahu rabbi lii ku koy def bu soobee yàlla yonent bi doo ñàkk muk mukk mukk xaalis moom du gëj di nekk si sa calpe yàlla dina la dina la tàggatal xaalis di dugg sa calpe lu bari dégg ngeen euh, suñ jógee si loolu nag ñu leen indil nag si si beneen yoon si kalpe bi da jël ngeen jël euh, lii nii la ñuy wax clou de girofle ci français mooy xorom poole ngeen def ko fii nii ngeen def su ngeen paree ngeen teg ko fii si kawam bu ko defee da ngeen koy lem dafa xawoon a dëgër moo tax duma ko lem mais da ngeen koy lem su paree ngeen dugal ko si suufu calpe bi ngeen dugal ko si benn poche daal si calpe bi rek foofu noonu kenn bañ koo laalati bu ngeen ko defee incha allahu rabi itam loolu baax na lool lool lool si wàllu calpe kon nag ñu ngi yemagum fii nii. di leen ñaan ngeen yokk abono yi euh, dinañ indiwaat yeneen vidéo incha allahu rabbi posé leen seen question si commentaire yi aimé leen vidéo yi gën leen ñoo encouragé partager leen lu ñuy def ñëpp mën see jëriñu waaw balaa may fàtte nag da ngeen di bind si fii nii ngeen di bind xaalis bi ngeen soxla somme bi bu fekkee ne million la ngeen bind million bu dee ay ngeen bind nag lu raisonnable loo xam ne yenu na maanaa mais nag du ngeen bind somme d' argent comme ni ma ko bindee fii da ngeen di bind euh, chiffre bi foofu rek ci digg bi si bee téeméer bu lay day euh, doon lii nag moom da ngeen koy lem dool ko si kalpe bi da koy boole ñaari feuille laurier la ngeen boole koog xorompole bi lem ko dugal ko si benn poche si kalpe bi fii ubbi ko dugal ko si benn poche boo xam ne dara du fa nekk kon ñu ngi yemagum fii nii leen ni wax ba beneen yoon incha allah.